waaw ginnaaw ñu néeg néeg bu yàgg lool procureur mujj nañu oo ni day tëj président Bougane Gueye Dany jox na ko mandat dépôt da koy jugé flagrant le 30 octobre bii di ñëw euh, ñu ne ko fan nga ko teg mu ne lañ waxoon rek ni dañ ne ko randul président jàll ci loolu amul mais da koy topp loolu rébellion boo xam ne amul parce que buggaay moo ne jàpp leen ma comme bugg leen ma dox jëm Bakel kooku yëkkati ñaari loxoom kooku amul rébellion tey nag yokk nañ ci beneen nee nañ dafa outragé dafa tooñ benn commandant benn agent des forces de sécurité du wax ju ban ban agent lay cest à daal affaire bi dafa reeloo bëgg nañu woon te Bougane téye nañ ko Bougane déposé na benn clé pour wane moom ni ñu ko agressé ba xotti ay yére yéreem que moom xeexul ak kenn que moom biñ ne ko même droité dafa droité bien que président jaaru fa jaaraanu fa loolu yëpp ay lay la woon tey moom wóor na li ñu bëggoon mooy téye ko téye nañ ko mais nag téye ndi ko gum la ndax la 30 président mooy atte mooy keneen koo xam nekkul procureur comme ni ngeen koy xamee procureur mooy mooy attekat magistrat bi nga xam ni dafa am kilifa boo xam ni moo lañu ooyee ministre de la justice ministre de la justice am kilifa bu ñuy wax premier ministre kon procureur moom def na xëy na li nga xam ni moom la xalaat mooy tëj Bougane mais président bi war a àtte le 30 nekkul koo xam ne dafa dépendre ci ministre de la justice wala mu dépendre ci premier ministre kon kooku bu ñu jëmee le gëm naa ni comme dossier dara nekku ci dinañ bàyyi Bougane xam naa ne dina tardé campagne mais mu commencé campagne am loolu gëm naa ko ndax dossier boo xam ne dara nekku ci lu may jóg naa bëgg dimbali ci ay sénégalais yi sonn fleuve bi débordé ndox mi nangu seen kër yi ma di leen yóbbu indil ndimbal ñu téye ma ni ma waroo dugg yóbbu ndimbal ah Sénégal doy na waar léegi de man de jaaxle naa. lu doy waar dañu ni. wax nañ ni dañ koy arrêté mën nañoo xam prison bi di kay yóbbu prison Tambacounda dañ ko doon tëj ba le 30 c'est-à-dire affaire bi doy na waar loolu ah. ti yoon dafa ni bu fekkee ni dañ jàpp da nga am présomption d'innocence déjà munuñ munuñ munuñ firnde ni li koy li koy waxal dëgg la moom indi na clé def ci lépp lu wane ni moom li koy waxal dara amu ci mais loolu intéressé wu leen leen intéressé mooy téye ko rek par force mu tëdd par force loolu nag lu doy waar la d'ailleurs gis naa tey Amnesty International euh, Seydi Gassama gis naa forum du justiciable Babacar Ba gis naa Birahim Seck ñëpp ñu yëngatu ci nee nañ dañ ko war a bàyyi sénégalais yëpp yi bëgg jàmm te am xel nee nañ ko bàyyi mais léegi nag a ah, xëy na Sénégal bi dafa nekk Sénégal bu bees ak doxin bu bees ba ku jóg di dem di dimbali ay nit prison mooy sa place. Euh, après quelques heures après son arrivée, le président Bougar Gaydani vient d'être placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République de Tambacounda. Et son jugement est prévu le 30 octobre à l'audience des flagrants délits. Il sera jugé le 30 et nous avons bon espoir parce qu'on lui reproche maintenant trois infractions parce qu'on a ajouté une dernière infraction. La première infraction, c'est le refus d'obtempérer qui n'existe pas. On nous dit que le président devait passer par la même route et que Bougar Gaydani a refusé de céder le passage au cortège présidentiel. ce qui est archi faux. Le délit de rébellion, c'est Bougan Guida lui-même qui s'est rendu aux forces dans l'ordre pour dire aux gendarmes arrêtez-moi. Donc il ne peut pas y de rébellion. Et on vient d'ajouter, au moment donc de l'inculpation, on vient d'ajouter le délit d'outrage à agent de la force publique. Quel agent Qui a-t-il outragé je crois que on l'a chargé pour l'envoyer en prison et c'est clair. Maintenant, nous savons que le procureur de la République n'est pas celui qui va juger, mais celui le, celui, celui le maître des poursuites. Et il peut mettre, donc quelqu'un qui est poursuivi, il peut le mettre en prison en attendant le jugement. Mais nous sommes optimistes, parce que le juge qui va juger monsieur Bougane Gueye Dany c'est un juge indépendant contrairement au procureur de la République qui comme vous le savez dépend de la chancellerie donc du ministère de la Justice qui lui-même dépend de la primature et de la présidence de la République. Donc le procureur est moins indépendant que le juge qui va juger le 30 Bougane Gueye Dany. Et comme il n'y a aucun élément sur lequel on peut se pour condamner Bougane nous sommes optimistes. Nous attendons sa libération le trente pour pouvoir battre campagne. On va l'empêcher certainement de battre campagne euh, pendant les premiers jours, mais il va peut-être rejoindre les troupes. Mais tout le Sénégal déjà est solidaire. Tout le Sénégal soutient Bougane. Et donc on n'a absolument rien à euh, craindre. Euh, euh, je crois que même sa campagne électorale euh, a été, disons, déclenchée hein, par, par cette arrestation. Déjà, Bougan fait l'actualité et on sait qu'on on lui en veut avec son type tank et, qui fait très mal, mais Bougan va continuer parce que c'est un combattant, c'est un lion. Vous pouvez nous faire confiance. Le 30, Inch'Allah, rendez-vous ici au tribunal de Tambacounda pour la grande victoire de Bougan Gaydani.